Bonjour fidèles amis internautes d'Equivox TV bienvenue ci seen matinale de tous les jours comme ni ñu tàmmoo di ko defee rek euh, saa su ne dañuy ànd ak yéen présenté leen li nga xamante ni moom mooy revue des titres waaye comme ni ngeen ko xamee rek xam ngeen ni tout le temps dama ciy ànd ak euh, ndaanaan ci biir ndaanaan yi muy journaliste bu mag boobu di Pape Ousmane Cissé ah, journaliste bu ndaw ma bu mag bi bàyyi ma bu mag bi mooy muy Pape si Cissé Pape Ousmane waaw maa ngi lay yi ñuy bàyyi xel fajar bu ci li xam te ne moo jëm ci li yëglekaay yi xëyee. Mhm. vraiment kontaan àndaat gis naa ni rouge bi macha allah njàmbe mu gis naa ko mu may tooñ. mais moom maa ngi koy xaar. xaw ma nag da ngaa mer ci réew dafa yëngu daal. waaw yëngu na de. dafa yëngu ma li ma gis ci yëngu nag doo boo seetee du baax bàyyi ma yëngu di ànd ak ah. ñoom rek. <laughs> xam naa ni dañuy rek euh, démarrer tàmbali li nga xamante ne ak euh, l'exclusive tey moom la ñuy dooree. Ah, ba tey rek euh, waaw te moom daf ñuy ibbee ak moom ak jiitu réew mi daa ni moo wax de. waaw nee nañ chef de l'État face à ses ministres de fortes piqûres et de rappel. waaw du gulet. Mm. ki ko xam di suivre conseil des ministre mm-hmm. que ce n'est pas la première fois que le président Macky Sall di ñaaxaat ay ñoñom ministre mi rawatina. ngir ñu jëmmal li ñuy woowee fast track depuis bi mu faloo bi ñu ko joxaatee ñaareelu mandat ba léegi mu ngi tudd baat boobu. Mhm. mais dafa mel ni satisfaction bi muy xaar ci wàll wi la amul et d'ailleurs ñàkk am satisfaction ci ay jëwrinam ñun askan wi dañ ko yëg. Mhm. dañ ko yëg parce que da ngay gis secteur boo laal am na ay jafe-jafe comme si amul ku ñu fa teg ngir saafara jafe-jafe yooyu tey réew mi boo xoolee daanaka néew na nga laal secteur boo xam te ne amul ay jafe on comprend que ni ci Covid lañ nekk réew yu bëri la on n'est pas en train de dire que ni euh, voilà lépp dafa war a yemb lépp dafa war a dox mais gouvernement ñu ko tegee kilifa gi wóolu ñi mu fa teg normalement war nañ mën a commencer ressentir li nga xam te moo tax ñu teg leen fa li su fekkee ne dafay def rappel des troupes di ko def di ko defaat di ko defaat amul li mu bëgg pour man la logique voudrait que nga xool nooy changer équipe bi. teg fa mhm. ñeneen ñoo xamante ni. ils seront d'attaque mm-hmm. ils seront sur le terrain pour affronter li nga xam te ne mooy réalité yi et euh, féexal li nga xam te ne mooy les population moo tax piqûre de rappel bi muy def nii surtout ci période bi ñu nekk nii mm-hmm. dina jafe euh, depuis deux mille dix-neuf remaniement bi mujj bi léegi mu def un an su fekkee su fekkee su fekkee defu ko ko sax ba léegi li mu bëgg amu ko donc man jàpp naa ni euh, soxlawul muy insister trop fu doxul rek na fexe nu mu ko euh, nu mu ko soppee. Mhm. teg fa ko mu jàpp ne mooy dox. moo gën euh, chaque conseil ce que jàpp nañu aussi dafa xaar rek euh, ba li nga xamante ne moom mooy élection jib doog a jël caravage bi daal na day dóoree. waaw xam nga ku xam président Macky Sall. Mhm. mosoon na wax benn wax boo xamante ne man dama taxaw ni ànduma ci moom. Mhm. mooy li mu ne ay ñoñom ku ci perte base am ku ci perte élection yi moom di ko. waaw da waaw waaw moom kay di ko cravache bi dina jib comme ni nga ko mm-hmm. waxee sànq ma ne ko non li mu waroon wax mooy ni lettre de mission yi mu assigné ministre yi mu tabb nga xamante ni décret la moom moo leen nommé ci confiance am mm-hmm. ne leen kat li tax ma nommé leen suñu demee ba ma war leen évaluer gis ne kat liggéey bu def leen ko dinaa yëkkati cravache bi mm-hmm. pour man foofu la ñuy gën a foofu lay gën a jëmmalee li mu yàgg wax mooy la part euh, la patrie avant le parti mais su fekkee dafa mettre en avant mm. les aspects liés aux élections même bu fekkee ni looloo ko fi teg mais que loolu la ñuy gën a dégg ci ay orientation suy waxee ak ñoom. Mm. mooy ni bu waxee ni la patrie avant le parti duñ ko gis duñ ko ressentir li ñu njëkk a gis mooy le parti avant la patrie et je pense que loolu mooy indi euh, jafe-jafe yi nga xam te ne souvent dañ koy dañ koy nemmeeku te yaa ngi koy wax léegi ci mm-hmm. ñi nga xam te ne jot na leen tabb doon ay jëwriñ ayca mi ngi noonu ah, mu mel ni njiitu réew bi moom ah, yëkkati na rek eh, li nga xamante ni moom moo ko soxla nee na leen daal da koy def nii ñu ànd bu ngeen ko deful rek xëy bi da di daal <laughs> ñu jàll très rapidement ci Vox Populaire tey nag eh, ñoom dañu xëy fële ca Matam nee nañ le terrible galgal de la paire à Sonko et Sy noonu lii dafa ñaaw doy na waar doy na waar dama de franchement hmm. amul lu gën ñaaw lii bett nañu bëri mooy xool on est en train de faire comme si de rien n'était yow nit koo xamante ni mhm. da woote woon ne da ngi bokk ci Yewwi Askan Wi yaa ngi bokk Pastef di duggandoo ñoom di génnandoog ñoom mm. dem ba ñu wóolu la tab la def la njiit ngay korone mhm. ñu commencé di waajal élection locale yi nekk ci confection liste yi ak nu mu mettee ma mhm. gis ñoo xamante ne dañoo veye ngir rek respecte li nga xamante ne mooy process bi yow nga ànd ak ñoom ci loolu ñu def liggéey boobu yëpp ngir jëm ci ay compétition yoo xam te ne comme ni ko suñu charte yow tëralee mm-hmm. ñu am ñoom possibilité dem laaj askan wi mm-hmm. yow nga nekk seen biir mm-hmm. ànd ak ñoom ñu wóolu la ñu jox la seeni document nga war a dem déposer ko ni méng ak moom réer moom kenn gisatu la nga dem ba mu neex la nga feeñaat ni démissionné nga foofu yow delloowoo ñoom document yi ñu la jox ngir parce que dañ ko waroon dem déposer. Mhm. ba tax ñoom fi mu ne nii amuñu sax possibilité dem déposer ko parce que bu ñu demee euh, sous préfecture dañ leen di demande ana seen mandataire parce que tant moom ñëwul dina jafe pour que. Euh, lu ñu validé ko lu ñu war a def ñu validé ko. Mhm. yow nga xam loolu yëpp mu mel ni tu as joué sur ça nga dem benn moment nga démissionné nga ni fan nga jëm nga dellu APR. fa nga jógee woon de. ba pare ci sa discours ngay gërëm un certain amul lu gën a ñaaw ci pratique politique seen bi nga xamante ni moo xew ca Matam mm. te lii dafay gàkkal maanaam non seulement classe politique bi yëpp mais ñi yàggoon a wax ni politique amul moral amul valeur mm. ay ware la wax nañ ko la àll mm-hmm. boo xoolee ci àll bi gis nga mala yi ni ñuy def ku mën sa morom fàdd amul règle amul dara ku ci nekk mm. sa doole amul xel amul valeur mu ci incarné kii def ñaaw ñaawteef bi parce que dama jàpp ni amul lu gën a ñaaw lii te classe politique bi yëpp waroon taxaw ŋàññi ko. tey mhm. man su ma doon waa APR responsable ya fa nekk damay taxaw ñaawlu lii. dafa ku mel ni Farba Farba Senghor mu muy gërëm ak ñeneen ñi nga xamante ni fekk dinañ ci biir APR. Mhm. tey ñoo waroon taxaw ñaawlu ko suñ ko deful xam nga lan lay nuru. Mhm. mooy ne coup bii lii parce que lii coup laa ko mën a tuddee. mooy ne ça a été euh, prémédité prémédité. préparé. te boo moytul ñii muy gërëm di ay responsable ñoo nekkoon derrière ne ko demal leen. que boo dee moom ba ci cappaandaw ga nga fexe ba xaj leen li nga xam ne mooy seen ak lii dara gënu ko ñaaw pour man politique ak jongante adversité waru mën a yëgg ci niveau bi maanaam nit mun a infiltrer benn organisation hmm. woote woo organisation bi nga bokk ci seen i si seen i décision xam li ñuy def nga dem ba ci cappaandaw ga ñu jël lépp ñoom li ñu yaakaar ginnaaw bi ñu ci xalaatee rek ci seen bopp. def ci mm. ay nuits blanches nee naa ci confection liste yi. Mm-hmm. ci investiture am ñoo xam def nañ ci ay nuits blanches. dafa parce que tout simplement seen gox jaral ko jàpp nañ ni bis bu ñu jotee seen gox dinañ soppi jafe-jafe mm-hmm. yow jël ñoom seen loolu yëpp jox la ko dara loo ci def lu nga ni méng ak moom. nga réer del ñu bàyyi ko noonu. Mm. lii pour man Sénégal yëpp war a tax gis nga kii. Mm-hmm. gis su ma doon waa waa Matam ñëpp ay génn ñaawlu xeet bi xam nga lii bu bu fekkoon taxawaay boobu am na lu muy régle mooy ni. Mhm. réew mi dootul nangoote benn politicien di di di maanaam di promouvoir ci penc bi mhm. ay contre valeurs su doon ni képp koo xam te ni def nga yenn contre valeurs yi que di nga am riposte bu bàyyi ko ci population wala ne du nii. Mhm. du lii la ñuy xaar ci yéen kon di nga doon gis ni ñëpp ay cocc ci penc bi mais malheureusement xoolal waa ji ak lu ñaaw lii mu def. nii ay euh, APR dañ ko accueillir muy gërëm ay responsable APR au mu mel ni comme si li mu def c'est tout à fait doy na waar naa ñëw dugg Equivox ne yéen laa gëm maa ngi ànd ak yéen yéen laa yaakaar fekk na yow dafa ñëw pour infiltrer xam suñu biir ak suñu dit génn na jël li nga xam te ne mooy suñu arme mhm. yàquñu après du mujj fenn loolu lay nuru mooy trahison lii gën dara gën ko ñaaw haute trahison mën nañ ko tuddee noonu en tout cas waaw lii sëmmam la ci ñaawteef ci mhm. pratique politique boo xamante ne pour man ñëpp a war a taxaw classe politique bi ñaaw ko et domage mhm. qui est mooy ni gisuñu ko rawatina sax ñi nga xam ne ñooy la mouvance présidentielle nekk ci kenn war a taxaw ne ku mel nii soxlawuñ ko mm. ndax su ko mën a def yeew yi mën na leen ko def yeneen te mënu ko def ñeneen te loolu bokkul ci li nga xam ne war nañ ko mën a jàngale ci pénc su ñuy doom suñuy rakk mm. ñi nga xam ne ëllëg bëgg nañu jël politique def ko noblesse liggéey seen gox mm-hmm. lii du leen nawloo tey day gàkkal image ak deru Sénégal mm-hmm. ca bitim réew ndax xam nga ni léegi village planétaire la xaw Sénégal te boo demee États-Unis dañ koy gis. ñu ngi koy waxtaanee lu ñaaw la. Mhm. lu lii lii lii dara gënu ko ñaaw cest à a doy ma mhm. ci teg parce ci ñaawteef ci acte politique bu ñu mën a teg. Mhm. ci Sénégal depuis euh, la nuit des temps ba ba ba ci toll nii. en tout cas ñaaw na te ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci parti Pastef boobu ñaawlu nañ ko tamit euh, mu doon loo xamante ni. nit ñi euh, en quelque sorte dan dañ ko doon xaar li nga xamante ne moom mooy politique ah Pape Ousmane bëri na luñ koy wax mhm. boo ne waxee ñu ne politique amul ngor amul xarit amul àndandoo maanaam bopp sa bopp daal ku nekk say intérêt personnel moom moo la fa bàyyi loolu yi bon ko indi ci langue bi mm. mais politique suñ ko bàyyoon ci noblesse am euh, Mariama est-ce que gis nga lu gën a mag servir une communauté lu noble la mais amul cest à penc ñu ne la yow la ñu doyloo pour nga conduire suñuy destinée mm-hmm. nga am ci sa responsabilité ay vie mm-hmm. des vies humaines yoo xamante ni ñii mm-hmm. yaa war a assurer seen carrière nga am triptyque boo xamante ne xëy na doo ko génn mooy lu jëm ci wàllu éducation ni yow lañ ko dénk ngir askan wi nga fexe ba lépp lu jëm ci seeni éducation ci fi gën a suufee ba fi gën a mag nga assurer ko wàllu wér-gu-yaram fexe ba sa askan wér ndax wér gu fu mu amul munoo fa prétendre rien du tout. Mm, day wax. rien wàllu sécurité ak lépp lu jëm ci wàllu koom dara gënul noble. Mm-hmm. ci askan wi yëpp lu toll 16 millions de personnes yow ñu choisir na la yow bokk nga ci nga xamante ne gëm nañ nii war nga mën a doxal penc mi ni ñu ko bëggee. Mm-hmm. yow nga nekk ci niveau boobu noonu di responsabilité nga ne yow li ngay def mooy wane ne ak ah, politique de ay jëw la ay yàqante la mm-hmm. ay wuruj la. ay maanaam contre valeur lépp loo xam te ni penc bi Sénégal ñun ñëpp ñoo dëppoo ni warta mën a am yoo nga ni noonu loolu dafa war a mën a am. da nga koy déclaré loolu yow yaa ko indi mais dëggantaan bu ñu desee rek. Mhm. ci la politique telle qu'elle est enseignée. Mhm. telle qu'on la connaît ni ñu ko décrire pour man amul lu gën a màgg servir sa communauté mais malheureusement euh, ce projet a été dévoyé ñu jox ko ci beneen formule boo xamante ni lii day dëggalaat euh, doy waar. li nga xam te doy na ko ak kuubaay yi nga xam te ngi koy gis ci ci mbiru politique. en tout cas espérons que rek duñ ko gis ci yeneen ñi nga xamante ne ñoom tamit ñu ngi ci biir langue politique yu ba tey. mais am na Medina Yoro la <laughs> li am ni Matam am na Medina Yoro la te dañ ko def également ñi nga xam te ñooy waa Pastef et puis c'est c'est-à-dire su ma bëgguloon heurté. Mhm. ñi nga xam te ne xëy na bokk nañ ci xeet woowu te duñ mus a nangu lu mel nii. kon dinaa ci doon jaar mais dañ nekk Sénégal boo xam ne ñuy dund benn transition mhm. boo xamante ni mënumaa xëpp encore euh, voilà euh, ni ñu ko waxee xaw ma xam ba taal bi mais sinon dinaa ci doon jaar wax ko ni non dafa dafa dafa dafa dafa ñooñu nga xamante ne vertu ak valeur la ñu sa incarné ci réew mi mhm. gis nga ko ñuy def ko maatam def ko Médina Yoro Fula pour man parce que indignation collective moo amul. Mhm. su amoon dëggantaan pratique yi nañ ko. du du ñaar ci benn boobu la doon yem da doon yem. ne moom mooy euh, la tribune ñoom nag ba tey dañuy ci li nga xamante ne moom ni local et candidat nee nañu entre astuce tromperie et conviction. tromperie léegi wax nañ ci. xam naa ci loolu lañ sukkandiku <laughs> nag. ci loolu lañ sukk. Mhm. bien sûr bien sûr ci loolu lañ sukkandiku. Mhm. mais en dehors de loolu aussi. astuce kenn bañu ko. Mhm. mooy da nga ci ay compétition nga ni man ay sama stratégie. Mhm. ngir gagné élection yi fii la mu jaar ci li yoonal. Mhm. ci ay armes conventionnelles et non conventionnelles loolu luñ nangu la. conviction nag lañ gën a soxla mooy nit ki gëm ni man sama engagement politique. ci lii la lalu saa yoo ko waxee mu dégg ko. soo ko jëfee ñu natt gis la nga waxoon ànd na mhm. une conviction même bu fekkee ni sax yow dong la mhm. nga wéer ci sa conviction sax nga doxal ko ci politique sax kooku dañ ko war a tàccu moo tax en dehors dañ ñu ma ñaawlu nii mhm. am na beneen côté ñi nga xam te ne xëy na ñuy góorgóorlu ci la ñu mën dugg nañ ci langue bi jàpp ne war nañ ko mën a soppi am na yeneen gis-gis am na yeneen projet de société parce que encore une fois de plus il s'agit de projet de société booy présenté euh, au peuple sénégalais. Mm-hmm. wax ni man kat ci génération yii di ñëw. Mm-hmm. génération vingt cinq ans la. Mm-hmm. li ma bëgg mooy tabax sénégalais boo xam te ne modèle bii lay doon. li ma bëgg mooy suñu gox goxaat fexe ba ndóol. dellu ginnaaw fan lay jaar loolu dafa am solo. am na solo càmbar ñi nga xam te ne ñooy doxal depuis boobaag léegi nga ne kat ñii di doxal depuis boobaak léegi jàpp naa ni. seen i jafe-jafe ci système bii la ci lii la. man su ma ñëwee dama koy soppi indi leneen. comme ne ko euh, sa xarit docteur Abdourahmane Diouf defee bu yàggul dara présenter mhm. un livre mhm. boo xamante ni daf ci fësal vision ci beneen système bu mu jàpp ni mhm. war nañ ko mën a jëmmal ci réew maintenant c'est un débat qui lance à la classe politique et aux su ma nee intellectuel nag waxuma ñu jàng nasaraan rek <laughs> ñi nga xam ne am nañu xam nekk ci réew mi te ñu doyloo seen xam-xam te yaakaar ni war nañ mën a dimbali réew mi ci xeltu ñooñu nag ñoo war a xoolaat gouvernement de concordance bi nga xamante ne Abdourahmane Diouf mu ngi koy digle est-ce la ci ni ñu xamee woon système beeg yooyu. Mhm. lan moo ko war a gën a consolider lan moo ko war a dëggal. et pourquoi pas ñu xool nan lañ koy expérimenter pour man foofu la war a yegg moo tax ma gërëm. Mhm. rafetlu ñi nga xam te ne am nañoo conviction di laal ay astuces yoo xam ne jëm na ci fexe nan la ñuy gagner ay stratégie la. ñooñu mhm. moom non rien à voir ak ñi nga xam te ne ci tromperie lañ dëkk. <laughs> def lu ñaaw wax lu ñaaw ay kàddu ñaaw xëcc. violence dugal nit ñi ci ay fugg yoo xam kenn xamul nu mu mm. àndal sax mujj di niitu ci yow la ngay def ñu koy def pour man kooku bombe à retardement la société bi soxlawu ko classe politique bi non plus. en tout cas tromperie yi mën naa ñàkk dañuy jàll ci ki nga xamante ne rek moom mooy libération ñoom nag euh, dañuy xëyee ci li nga xamante ne moom mooy restitution au passeport de Sonko et levée de son contrôle judiciaire nee nañu le parquet s'y oppose. waa xam nga euh, euh, c'est comme épée de Damoclès bu ñu teg ci kawam. parce que depuis mois de mars rek coow la ca am ak mhm. euh, ci lañu ko euh, placé sous contrôle judiciaire léegi nag ay ñoom xëy na li ñu jàpp mooy ni war nañoo mën a ci fexe nañ ko lever maintenant euh, parquet day apprécier mhm. li nga xamante ni moom la ay avocat wu Ousmane Sonko dëxëñ ci lever boobu maintenant on va voir comme moom opposé wu na ci Mm-hmm. ndax ca ulti euh, euh, maanaam ca mujjantal ga ñeneen dañ ci opposé am déet quoi qu'il en soit c'est une judiciaire boo xam te jàpp naa ni mm-hmm. ñooñu Ousmane Sonko yi tey il est bien entouré par des avocats yoo xam te ni xëy na ñoo ko ci xalaat et puis ñoom seen liggéey la mm-hmm. dañ leen fay pour loolu kon nag nañu doxal bataille judiciaire moom mm. euh, duñ ko gagné ci média bi waaye en tout cas ay argument la yu yu yu yu convaincant moom moo ko ciy génnee mm. mais ce qui est sûr mooy que c'est vrai c'est comme une de Damoclès <laughs> sur la tête de Sonko en tout cas dinañu continuer di leen topp ba xool rek affaire bi fu muy ah, mujjee boobu léegi moo ko teree génn réew mi waaw moo tax mënul génn aussi effectivement te xam naa ne waa diaspora bi ñu ngi koy xaar ñu ngi ñu ngi koy xaar surtout ci période bi ñu nekk nii ci campagne ayca mi ngi noonu euh, dañuy jàll rek ci fi nga xamante ne génn Sénégal tuuti ah. Dakar Time nag tey euh, ñoom dañuy andil ki nga xamante ne moom mooy transition en Guinée nee nañ menace et sécuritaire réforme pourquoi Doumbouya doit rester maanaam ki nga xamante ne daal moo fa defoon mbir ma. xam nga bi coup d'état bi amee. Mm-hmm. qu'on a parlé de transition j'ai le premier ci benn su benn plateau bi ñu invité woon doon wax ni ku mel ni Doumbouya. Mm-hmm. fa baax ci transition boo xam te ne pour man war na mën a dem ba au delà des six mois yi nga xam te ñu leen koy xaar wala période bi nga xam te ne moom lañ leen fixé. Mm-hmm. pour permettre à ce que ce pays là. Mm-hmm. mun a am cette reconstruction bi ñuy xaar. Mm-hmm. parce que su fekkee ni de manière timide yegg nañ ci transition bi ci benn période. te base yi ñu war a jalon yi ñu war a poser. pour que définitivement Guinée nekk ci raay bi ñu koy xaar. su fekkee ni transition bi temps bi muy bi muy soxla matul rek bu fa jógee rek lu mel ni mën na faa amaat te li ci gën a neex mooy Doumbouya affiché wul benn ambition. pour le euh, moment pour le moment. Mhm. donc loolu dafay gën a consolider waat li nga xam te mooy légitimité am. Mhm. que ni war nañ ko mën a may chance ni mu tàmbalee transition bi. Mhm. consulter ñi nga xam ne ñoom la war a consulter ñu nekk nag di liggéey ngir taxawalaat Guinée ci raay yi. ci wutal ko comme ni mu ko waxee woon bi muy jël bi muy def coup d'état avec euh, discours am bi mu bi mu waxoon mm-hmm. ni constitution Guinée amatul constitution daanaka bu permettre nit ñu mun cee sukkandiku mm-hmm. que dañuy réfléchir ci amaat beneen constitution bu bees boo xamante ni mm-hmm. day sukkandiku ci valeurs yi nga xamante ni mu waa ak gine Guinée yi ñu ngi koy incarné moo tax ma jàpp ni ñiy xalaat ni pourquoi euh, Doumbouya doit rester argument yooyu la ñu am yu ñu tekki table bi mooy ne c'est prématuré fi ñu ci toll nii euh, ci concertation yi amal ak nañuy def ba gën a mën a réconcilier wu ak mhm. moom maanaam euh, peuple bi ànd ak kii bëgguma wax euh, <laughs> kii maanaam euh, ethnie yi nga xamante ne ñooy nekk di xeex seen biir mhm. waaye classe politique bi nga xam ne war nañ mën a xam ne kat seen réew mu ngi ci transition boo xam ne soxla nañ ku ci nekk am benn esprit de dépassement mhm. pour que ñu mën a sóobu ci li nga xam mooy l'essentiel ci Guinée mooy tegaat ko ci réew mi moo tax Doumbouya ferait l'affaire et que pourquoi pas mu continuer transition bi ñu yokkal ko temps pour mën a continuer liggéey bi nga xam te tàmbali na ko ngir euh, teg euh, Guinée ci euh, loxo yu loxo yu baax. en tout cas gars yi am nañ ci moom yaakaar te ñu yaakaar ne rek yaakaar boobu noonu du tas ñu bàyyi leen rek ñu wéyal après ñun incha allah dinañ ko topp xoolan moo ci ruus. dañuy tëjee ak li nga xamante ne rek moom mooy sport tey nag ñu wax ci ki nga xamante ne moom mooy entraîneur des lion pourquoi la liste d'Aliou Cissé si attendue. waaw parce que euh, xam nga euh, qualification yi lañ jëm. Qatar 2022. incha allah waxuma la sax bii waaye xam nga ni ku mel ne Aliou Cissé saa yuy génn moom liste am moom la ñëpp di bàyyi xel. am na solo daal parce que tellement que am na derrière ñoo xam ne dañuy contester souvent choix yi nga xamante daf koy opérer ci yenn joueurs yi. Mhm. donc moo tax euh, soo xoolee même ci tanière bi li ñuy xaar mooy une équipe boo xamante ni. Mhm. dafay dafay dafay dafay fixe. ba léegi amaguñ ko. Mm. chaque fois dañu gis ay changements euh, peut-être moo tax ñenn observateur di ko xaar pour xam est-ce que réellement la mu yàggoon a amal te mu ko doon may euh, victoire. Mm-hmm. ndax loolu la jëmmal ak déet waaye xam nga Sénégal moom dafa nekk. yombul de Sénégal la yombul satisfaire en tout cas Sénégal on est 16 millions de personnes 16 millions d'entraîneurs di ko waaj a doon waxee te dëgg la. <laughs> mooy ne choix bu mu mënti def moom Aliou Cissé il faut que assi mu xam ni. Mm. am na ñoo xam duñ ko may. non ça c'est daañu ko xaar daañu ko contesté daañu ko ante yow maintenant matam ci moom mooy mu xam ni ñooñu seen gis-gis lañ lañ joxe. Mm. moom mi nekk ci biir xam réalité yi fexe ba aussi tamit. la muy génnee mu wóor ko ci nag ndam lay am quoi qu'on puisse dire Cissé Cissé bi nag bi mu fi nekkee ba léegi jig na équipe bi. Ah, donc nag amaguñu amaguñu mu ngi faral mbokkam <laughs> ah coupe bi mais gëm naa ne bu ñu demee Qatar bu ñu demee CAN bi ren moom. incha allah bon xam naa ni. en tout cas am nañ ci yaakaar bu baax a baax mais buñ fàtte am Sénégal moom. Euh, moo nekk dëkk boo xam ne 16 millions yëpp a joué. maa la ko lu nekk ci tanière bi mais ñun ñëpp a joué ku nekk fi nga toog ngay toog naan poste bi kii ci waroon nekk poste bi kii ci waroon joué ñoom ñooy alimenter les débats yaakaar na ay spécialiste la ñun on est en tout. finalement dara dana waat façon xam naa ne dañ koy bàyyi ak euh, tranquillité moom mu def choix bi gën ah, choix bi gën ci Sénégalais yi dafa am fulla euh, non bu mat sëkk fulla bu am fulla bu mat sëkk la am moom gis nga gars non moom moom def bu waree def résultat da def coolee fi ne rek waaye mu ngi def résultat. day da koy defante ak ñoom ah, xam naa nag euh, ñu ngi ñu ngi daal ñu ngi am ci moom yaakaar bu baax a baax di xaar liste bi aussi. ñun tamit euh, xam naa ci noonu rek la ñuy tëjee li nga xamante ne tey moom la ñu leen andiloon ci revue des titres ma àndoon ci ak ki nga xamante ni Pape Ousmane Pape Ousmane tey damay bàyyi rek nga tàggoo. ci waaw gërëm la sant la. Mhm. comme ni ko defee saa su nekk jox euh, internet yi rendez-vous demain incha allah ci yeneen su ko defee mu gën a yaatu incha allah incha allah ayca restez connectés xam naa ci kanam tuuti di ngeen am seen cas dinañ ci ànd ak Ramatoulaye ànd ci ak Ndiambe ak ñeneen ak ñeneen ku ci mel ni DJ moo tamit allez on vous remercie merci beaucoup.